Hmm. salaamaaleykum salaamaaleykum suñu mbokk internet yu Dakar net kontaan bu baax a baax ci topp bi ngeen ñu topp waxoon nañ leen ko yéen a ngi gis li nga xamante ni mooy band annonce bi di émission bu bos bees tax tudd jamono alors tey suñu premier numéro euh, dinañ choisir thème bi nga xamante ni moom la ñu bëgg waxtaanee tam bi du lenn lu dul yokk awra bi ndax am na wala amul benn vidéo bi nga xamante ni mi ngi circulé eh, ci réew mi eh, ngeen si ngeen sax feuse gaal seen pourquoi pas du ñu jaar sutur bi muy wax naan am na xale yu góor yoo xamante ni dañuy jël eh, pomme de terre di ko dugal seen biir tuba yi ngir seen awra yi mën a jóg et cetera est ce que loolu jar na ko est que rek nekk ak sa jabar naturellement li nga xamante ni yàlla moo la ko may nga jàpp si loolu est ce que sax jaru ko lu lépp di ay sujets xamante ni bëgg nañ ko waxtaane mais sama gos comme lu may faral di waxee ah bien accompagné par le beau sourire de Diarra. les ziar tagg naa la fi waxal sa waxal la lu baax. maa ngi leen di <laughs> sama xarit nga. Mhm. te damay am mbégte saa su nekk di feggoog yow plateau d'ailleurs di ko feggoog ñëpp ah, di nuyu Davida Soda comme ni ma koy faral di defee. Mhm. comme ni ñu ko waxee rek suñu premier numéro bi nga xamante ni nag jamono. Mhm. ñu fas yéene waxtaane li nga xamante ni mooy vidéo bi nga xamante ni jamono ju ñu toll nii juróom na tuuti polémique ci réseaux sociaux bi. di Feuz Galsen bi nga xamante ni. dafa daal di wax rek alerte sax lay def jigéen ñi. di wax kat yi rek dem na ba wax kat yi tout tout ce qui ma ci kàddu bi que ni gox ñi léegi dañoo am ab dañuy am habitude léegi di jël dara di ko def ci seen tuba yi pour que mu te loolu nag defe naa ne mbirum artificiel moom jigéen lañ ko gënoon a xamee mhm. léegi ñi ñoom it di wane ci mbir moom dafay xaw a doy mhm. dañ koy fas yéene waxtaane fii ci plateau bi rek bu soobee mhm. yàlla d'accord dinañ ñëw ci ci ci ci développement yaa ndax xam naa ne am nga idée yu bari yoo ci yoo ci bëgg a wax euh, damay nuyu sama frère le grand chroniqueur Davida maa ngi lay nuyu sant bu baax di wax naa naan sa simis rafet na. merci beaucoup <laughs> ah, say lunettes rafet ma dégg la tudd merci beaucoup. Ah, taal macha allah <laughs> ah, plateau bi na xaw a ala doome torop ndax li ko yàq rek lenn la. Mm. pomme de terre bi ma jàkkaarloo. pomme de terre la waaw xool ko. kii boo ko xoolee da lay saf kuy jaay. pomme de terre bu tubaab bi wala bu. Eh, pomme de terre. d' accord xam nga pomme de terre la ñu war waxtaanee. moo tax ma ne la pomme de terre comme dëkk toog nga xamante ne Angleterre. ma tourné ci moom peut être moom elle est un peu charmante. nangu nañ ko waaye xam nga ñu gën a charmant mooy ñi may seetaan. Mm-hmm. képp koo xamante ni safoo nga Dakar net rek mm-hmm. saa su nekk damay am mbégte jàkkaarloo ak yow mm-hmm. ci jamono ñu war a waxtaane nag lépp loo xamante rek mm-hmm. comme ni ko Ouzin waxee muy actualité yi muy li ma gis nag tey mu war a doon loo xamante ni ah xaaral ma noppi denc ko d'accord xaaral ma noppi ah Davida moo wax Soda maa ngi lay nuyu Ouzin maa ngi lay a baax Davida man ngay tooñ dégg naa lu baax yow moom xaar ma maa ngi ñëw rek maa ngi yow du yomb jeex na jeex na maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax euh, tey mm-hmm. xam naa tey moom bu ñu ko war a waxtaanee fii mm-hmm. xale yu góor mooy loolu mm-hmm. chaque jour ak lu bees tàkk li muy bañ a dégg sama xarit bi loolu lay bañ a dégg film yi mais ba ko ba si kanam d' accord d' accord alors dañuy dañuy dañuy dañuy enseigné à dem direct si bi nga xamante ni moom la ñu taamu Davida lan nga jàpp ni moo waral góor ñi di jël ay pomme de terre wala ay mbir di ko dugal seen tuba yi ngir mu marqué bu ñuy dox wàññi jigéen ñi wala c'est pas lan nga jàpp moom mooy moom mooy. Mm-hmm. ah loolu man ñàkk fayda sax laa ko jàppee est que sa pomme de terre la. Mm-hmm. est-ce que pomme de terre la. Mm-hmm. te moom bu doon choisir war na mën a leen sa ñàmbee ngi fi. ñàmbe du gudd. mooy mooy gën gën gi du bu dee lu ci kii la rek la ci bëgg ñàmbe ngi fi pomme de terre dëgg la c'est vrai de mais carotte a ngi fi. gisoon nafe nu mu baaxee nafe. yooyu yëpp bu dee li ñu wax moom mooy tax ñu koy def man bu doon man de nawe laay choisir. nawe ak ñoom nooy waaw laax. dafa nooy ah, dafa nooy du cadre nooy gi ñoom bu dee visibilité lañ ci bëgg rek. Mm-hmm. mën na jël nooy moo gën a baax. Mm-hmm. man sama philosophie loolu la. Mm-hmm. léegi nag ki wax wax jooju. moom dafa am boroom kër. xas na borom këram te yëgu ko. ndax lu naar bi ndaw mi def rek ci bu bi la ko gisee. te ko xam kii nga xamante ne mooy borom këram gisuñu ko ci daray ñàkk fayda. kon moom dèjà xaslu na ko. saagalu na ko. mu tegaat ci moom muy jigéen muy fës gaal seen. gaal seen bi mu wuyoo mooy Sénégal. boo doon définir muy gaal seen Sénégal teranga la ñu xamee kon wax ju rafet fii la war a fekk baax mais doo fi amee fi wax ju rafet dëkk fii nga xamante ni wax ju rafet la ñu xamee nga jóge fii dem beneen dëkk jël sa caméra mu tiim la ngay wax ju ban bu jógee ci góor ñi suba mi ngi ci dem ci jigéen ñi te moom xam na ni jigéen la loolu rek laa ci mën a gum wax gum pour le moment mm-hmm. Mm-hmm. jaara mu ko waxee rek ñun Sénégal dafa am nu tubaabee nag comme ni mu ko waxee rek. <laughs> vas-y vas Davida ni mu ko waxee. d'accord comme Davida ni mu ko waxee rek euh, ci wàllum yar mi Sénégal dañoo yar façon yar boo xamante ni suñu déggee ko wax wax jure yi sax daf ñuy def problème waaye nag jamono ju ñu toll nii ak réseaux sociaux yi moom ku nekk da ngay toog fi nga toog di wax lu la neex. Mhm. waaye nag damay ñëw ba. ba tey ci lu mu wax ci wàllum góor ñi léegi comme ni ma ko waxee sànq mbirum artificiel mbirum loo xamante ni naturelul ci mm-hmm. jigéen ñi lañ ko daan gis jigéen ñi ñoo daan sol ay hanche ñoo daan def ay ongle di mm-hmm. def du yokk du yokk du yokk mm-hmm. donc tey bu ñu toogee jaar yëkkati sa baat pour mbokk internet dégg la baax tey bu ñu toogee bañ ne góor ñi ñi ngi utiliser pas pomme de terre bi peut-être daf ko wax noonu. Mm-hmm. pour pour kii mais man gisuma. góor boo xamante ni di nga jël pomme de terre di ko def ci sa yaawa. bien vrai nag am na loo xamante ni dinañ koy utiliser pour euh, ñu yokk seen ay awra loolu moom instant bi jamono ji ñu toll nii euh, booy seetaan ci sëriñ réseaux sociaux yi. Mm-hmm. ku ci bëgg am bës foofu ngay wax. Mm-hmm. dama yokk awra dama yokk awra mu mel ni léegi góor ñëpp a yokk. mais est-ce que est-ce que euh, oh, doguma la est que oh. euh, doguma la ci ci côté boobu ah ci ci domaine boobu est-ce que nekkul ni demande bi moo ëpp doole. Mhm. offre bi maanaam jigéen ñi li ñuy soxla si ñun dañu ko mënul wala dañu ko attanul moo tax ñuy dem di yokkaloog ak di gonfler. bi ñu waxtaan ah, man ak sama xarit Dabi daal man man ñu ngi ci doon waxtaan. Mhm. man ko bu njëkk góor jigéen pour man ah, bu daan taamu jëkkër da koy taamu ci jikkoom. Mhm. ci yar bi ci jullite léegi ñu toogee ba jigéen ñi léegi. awra la ñuy xool. bu gudd bu gàtt bu gàtt bu ndaw ak bu bu rëy. jamono yàqu na mhm. te loolu du sëy wala loolu yoru sëy mu mel ni daal jamono ji comme ni ñu koy waxee nii rek mhm. comme émission bu wuy na mhm. jamono ngay gis li nga li nga xamul woon ngay gis li nga xamul woon léegi moom ngay gis lu nekk daal doy na waar daal bi maa ngi noonu doy na waar alors ah affaire dafa doy waar parce que boo gisee léegi jamono ji dafa changé dafa changé léegi man nee naa tey booy booy booy xool tey xale yu góor yi dañ baal ma si wax ji tey man je comprends dama naan xanaa léegi ñun ñëpp lu ndaw lañ yor. Mm-hmm. parce que koo si gis. yow da nga jàpp ni xale yu góor yi. Ah, ñëpp que mm-hmm. loo xam ne tey yaa ngi ut carte tey boo leen fekkee parce que booy mm-hmm. da ngay dem ba yaa ngi dem euh, marché. boo fa demee tey am na benn waajoo xam ne tey boo demee day fees dell. góor ñi ñoo fay bari. lu ñu soxla ñu naan am na carte yoo xam ne day yokkalaate. te ay xale yu góor rek moo fay fees. mais day comprendre man mënutuma comprendre bu njëkk amuloon mais liñ gis jamono ji tey jamono ji koo gis léegi. xale hmm. yu góor ta nga baal ma xam naa yaa ngi ñëw di ma tontu si li may wax. amul ko moom ngay wax rek yow koy waxal li ngay wax rek. waaw gis léegi ñut lu yokk. Hmm. lu yokkoo mu a ñu yanul luñ ah, hmm. parce que sànq yow sànq solo tubay góor sànq solo yu tubay ba affaire pour ñoom rek nekkuñu góor. Ousseyn Ousseyn Ousseyn déedéet bàyyi leen ma ñëw jigéen a wax maa tontu. Ousseyn ñaari jigéen a wax nga a maa ngi ñëw xam nga gën lu muy lu muy lu muy réeree di yaatu yëpp cour moo koy dëbb cin lu muy réeréer yëpp ku dugg cin waal wala ku duluus waaw lan moo ciy différence bi waaye nag ku dugg mag mooy yëngal déggoo ma de mm-hmm. kuddu cin waar moom na mu mel moo tax ñu naan ko kuddu cin waar waaye te la muy dugg muy cin bi mm-hmm. foofu mooy wax ja xam nga ñoom bu ñuy wax ba naan bitig nangam boo fa demee góor ñaa fa ëpp dëgg la mm-hmm. waaye la loon la ñu ni moo tax lii dal leen xam nga tey góor ñi dem ba ci ut ku leen di yokkal c'est parce que demande bi su la suñu borom boolee nga soxna soo xamante ni tarkaal la xam nga casting dañ ko war a def ci sëy casting yow da nga da casting peese natt essai yëpp dafa war a am de casting xanaa xamoo sëy dafa war a dafa laaj casting bu baax mm-hmm. nit ku nekk da xam sa pointure yow doo sol 44 du sa pointure looy sóoru loo xamante ni tamit du sa lool boo waxoon dara da ngay uti ji pneu mm-hmm. ñoom ñuy dem c'est vrai ñun dinañ am ñuy dem mm-hmm. bi la majorité bi ñi nga xamante ni suñu borom daf a boole woon ak ay waajur yu yu di leen man dañ ma dàmp tarkal dañ ma dàmp ba ma yëg ni dàmp naa léegi sax ngay simee ko di sangu naan est-ce que maa que man la. man yenn saa nga yor loo xam ne. waaw da nga koy xeeb. loo xamante ne koy xeeb. xanaa kon jaaro ci dàmp gi. non déglu ma rek yenn saa yi nga gis koo xam ne dàmp nañ ko. waaw mu normal. mais li mu yor du ko doyloo. ah loolu de moom xanaa kon la mu engagé la. du ko du ko doyloo Soda déedéet. loolu yëpp dafay ñëw bu njëkk ay affaire yokk awraak ay affaire kii jamono ji dañ koy doogay léegi. merci suñu maam euh, amul woon wala. samay nopp daaw ma dégg ñu wax mbirum yokku aara wala doon c'est parce que ñoom nañ nañ nañ nañ leen dàmpee comme ni nga ko waxee sànq wala nañu meloon mhm. parce que fii nii dañoo gisoon ñoom dañ daan téye seen bopp mhm. ba korog yàlla di leen may soxna mhm. seen soxna lañu njëkk a xam alors que góor ñi léegi ku ci am quinze ans xam nga téeméeri jigéen. waaw foofu fokkale gi kay ci yéen la njëkk a tàmbalee la ko mm-hmm. dina la jeexal. waaw sa sa awa. merci du ko fekk mais day neex. day neex Ousseyn parce que am na âge. ñun jigéen mais dégg nga mu wax de responsabilité. ah, ah suñuy suñuy maam yu ah. jigéen. Mm-hmm. ah mm-hmm. dañ daan toog ba seen heure sëy jot. ñu dem sëy yi. seen jëkkër rek la ñuy xam. léegi ñun mm, boo amee di ans. xam nga téeméeri góor. waaw am na avec waxuma la yokk awra. mais ni góor ñi di di yokkee seen awra góor jigéen ñi noonu la ñuy def. aussi léegi la déggoo ma de soxna si am lu ndaw alors. Mhm. Ah, Ousseyn d' accord d' accord léegi man da ah maa maa ngi lay dagg ah. moo moo moo bari ba nga xamante ni. Ah. ku ci nekk li nga yor mënutul satisfaire sa borom. Mhm. ndax kee kee di yokk kee ngay wàññi. Mhm. kee ngay wàññi mais ñuy wàññi dafa mel ne bareetul ah. alors tamit daal li ma la bëggoon a laaj mooy. Euh, est-ce que jàpp nga ni lu logique la bu fekkee da nga am soxna ah. nga am soxna nga jàpp ni nga yor dafa tuuti sa soxna bëgg nga yokk ko est-ce que baax na euh, nga dem dem ci yokkat yi ñu yokkal la est-ce que jàpp na xam nga affaire du ci yokk ak duñ yokk loo xam ne boo soxna ah, mu yokk du naa yokk ma ko yokk xam nga bi mu loolu xam nga boo amee soxna soo xamante ne moom daa ma ne rek benn caterpillar mhm. ŋàpp nga ni oh, ŋàpp gi mhm. xanaa xamoo lu garaaw laa lay wax nii. yaa ngi wax lu garaaw xam nga yaa sa certaine de ces positions yoo xamante ni ŋàpp. dëggal moo mais dañuy wax. Mhm. xam nga wolof day wax ne ne jigéen am na ak jigéen. Mhm. mu ne la soxna ak soxla. Mhm. kilifa ak ki fisas ak ki ne fàng. ban nga ci yow. man waaw kilifa laa xool ma. waaw ah, kilifa du sëkkal say si non yow taxawal rek ma ñëw. <laughs> bu la suñu borom nag nattoo nga am caterpillar. nga dem bureau ñëw am stress. xanaa xam nga euh, jigéen ñi jigéen ñi li ñuy gën a sonal ñun ba tax góor di dem di yokk ji stress bokk na ci. mënoo am nag société bi mu nga am benn stress bu ñu la teg te sëy pour mu neex bu jaar yoon stress bi doo ko am. fatiguement doo ko am. xel mu dal ngay am tranquillité su ko defee rek say neer mën a di communiquer mais sans loolu munoo am nag loo xamante ne day yàgg ci kii bi léegi nag su ko defee psychologiquement da nga naan man maa tële ci lal bi fekk ni tële woo de. lañ la teg buy ay pression ca ca bureau ba la. teg na pression ci société bi loolu nga boole ko fatiguement di lundi au samdi nga koy daw di daw di daw di dépense kañ ngay dallu mhm. soo dalluwul nag wax dëgg yàlla yàlla boole la ak ab caterpillar waxuma la yokk ak renforcer mais sëñ bi mu foo gis kuy yokkulu di nga dem yokku di mais nag il n'est pas dit aussi mhm. nga dem rek yokkulu rek mhm. dangay am puissance bi déedéet yokk mën na bañ a ànd puissance. ah oui absolument parce que guddi mën na mën na gudd min baa ma si kàddu. waaw te du am benn puissance bi. wala muy gaaw a pare mooy mën nga gàtt am dangar. Eh, xam nga nag affaire yi mbiri dangar a am dangar xam nga xam nga sëy mhm. ko war a jàngal maanaam sëy mhm. jigéen ak góor sëy mhm. dañ ko war a jàngal mais malheureusement li doon démb moo newul tey bu démb dañ la wax ñu la ah sa borom kër boo amee nii ak nii ak nii ngay def ak moom yaay bi ñëw ne la nii ak nii ak nii papa bii nag dafa am complexe tey toog ak doomam bii taawam mhm. ne ko ah doom maa la jiitu mhm. ci sa nopp bi may jël sa sa yaay ji lii ak lii ak lii mhm. mais mu wax ak yow loo xamante ni ah boo demee bay jël soxna dinga xam ne kat fii nga war a jaar ak moom mais loo ciy dégg diw dee daa tëdd ak soxna si rek ñu jël soxna si yóbbu ko ruyal ko mu dem hôpital ñu xotti ko ñu ñaw ko yooyu nga fay dégg parce que jàng luñ leen méthode bi jàng méthode bi ak phase préliminaire bi waaw alors Soda ah sa góor de. préliminaire yooyu nag. si ah, lay taxaw na dugg ci préliminaire ndax échauffement day am. Davida may ko wax am nga dégg daal tax du ma may ma wax. Uh-huh. parce que li muy wax nii démb la. Uh-huh. mais jamono tey jii. Uh-huh. li fi am ni ñuy sëyee. ak sëyu démb bokkul mhm. xam tey démb bi ñu daan sëy démb suñu parents yi mhm. dañuy daan xelal mhm. léegi tey bu jamono ji ñu toll nii ku ne sa xel bopp ngay dem moo tax ñuy jommi ku ne sa xel ngeen di jommi jommi la kay parce que tey yow waaw ma man tey xam nga tey jamono ji tey jii waaw tey boo ma takkee waaw ma ñëw sa kër waaw am na noo xam ne su ma ko su ma ko melul noonu su ma joŋewul yow da ngay jéem xooli ko faneen joŋe gan yéen seen jóge ngeen ñuy rey seen jóge ngeen gi moo ñuy rey seen jóge gi mooy tax ngeen di jël seen i jimboo di ñuy rey dama ne gis nga nit ku eh, nekk surcharge dafay am ba ci sa charge bi ngay branché. boo ko yeneen lu mu àttanul. day toj mooy day explosé laal moteur bi. dama ñii seen la sore ni ma la bëgg a laaj tey mm-hmm. yow jàpp nga ne da ko war a testé ba pare côté boobu ba pare bala ngay dugg ci sëy bi xam nga bu njëkk. non wax ma bu njëkk yow mu ngay di bàyyi ma ma ñëw rek. xam nga bu njëkk. bu njëkk loo mais jamono ji mhm. tey kon genre de tey bu ñu ñëwoon tey. da nga koy test. di ma bëgg ma soxna. Mhm. il faut que ma testé ko. jarul ma testé. man boo ko xam ne jarul testé. Davida Davida Davida. ndax naturel la ba du man artificiel doxul ci man Davida. Davida man boo ma xoolee. Davida Davida dama lay wax. waaw Davida wax la ak yow en personne day jox exemple. dama la wax waaw waaw dama ne waxal paate waxal paate dama koy teel a waxal dama koy teel a waxal mu xam man man sama dara amul artificiel. d'accord man man man man man ku ma mës a téye xam nga ni téye naa la. koo mës a téye. waaw waaw d'accord euh, euh, euh, Sode continuer. tey kon genre bi. baal turam waxal bàcc rek. man tey wax man ba tey wax ma turam kon genre bi rek laa wax. ba tey ñëwul waaw. tey bu ñëwoon tey di ma di ma di ma bëgg si soxna. il faut que ma ko ñu ngi bëgg si xale bu jog maa la wax lii. fekk bëgg ko pare sax il faut que ma testé. Eh? ba xool lu mu yor lan la. aywaay eh parce que léegi da ngay dugg léegi xale yu góor yi. xam nga problème mooy noo koy testé noo koy testé. non il faut nga testé. ci naka lu mu yor ba xam. noo koy testé baax na wala baaxul. yow lu baax noo koy xamee. baa ko moo lay expliqué non la parce que étiquette boo gis étiquette boo mën a gis ci noo koy yëgee yow ki la takkagul ki la takkagul ngay testé xaar xaar xaar Davida parce que déedéet doo xaar xaar ma expliqué uh-huh. ma koy jox exemple mm-hmm. parce que tey xam nga tey xale yu xaaj bi yëpp mm-hmm. pour nga gis góor bu dëgër jamono ji bareetul mm-hmm. ban expérience nga ci am yow bareetul ban expérience nga ci am parce que xam nga dañoo fo fo fooy léegi moo bari xale góor li ñuy fo moo bari fo góor a jigéen la ndaw boo xam ne âge de 14 ans lay am waaw xam jigéen waaw parce que mooy li nga wax rek nga daan xam jigéen di nga dem ba ay léegi boo ko boo ko tesee mais 14 ans nga xam jigéen waaw so ren taa jëm kaw moom moo leen sonal so am na foo xam dootul mënati d'accord so duma la duma la bàyyi dama lay laaj par exemple boo ko tesee nga gis ni li nga bëgg mm-hmm. amu ko li nga bëgg amoo ko ci tolluwaay ci dayo ci diisaay ci guddaay ah ko nooy def ngeen baal ma ci kàddu bi ah. dañuy waxtaan dañuy jàngale rek. Mhm. da nga koy bàyyi ak loo ko bëgg bëgg. Ah, xaaral mhm. nga bu ma laaj foofu. ah mbëggeel noo koy def nooy def mbëggeel bi. ma laaj foofu xoolal mhm. uus. uus baay buy bay kii li mu wax bàyyi bàyyi bàyyi noonu buy bàyyi jàll fan. d' accord moom nangul wax mais nangu na testé quand même ah. moom dañ koy def moom. parce que jaara moom mooy loolu. yow da ngay testé jaara da en tout cas euh, pour man jamono ju ñu toll nii ngeen war a fondé famille. Mhm. wala nekk euh, yéen ñaar. Mhm. am na lu gën a importance du nekk di testé. Mhm. te man ku amagul jëkkër ku ñu takkagul naka lay mën a testé pour man. xam nga li ma lay wax tamit nii que ni jigéen ñi léegi ñoom for nañ ba góor mënatu leen satisfaire. Mhm. góor ñi aussi for nañ ba mënatuñu satisfaire jigéen ñi. donc problème day am pour man li gën a am importance la ñu ci bàyyi léegi yow ki nga war a nekk sa jëkkër wala yow ki nga war a takk jabar waroo xool ba xam diis na gudd na. li ngeen war a xool mooy que ni ndax mën na la yor benn. ndax kii mën na nekk sa bàyyi. mais lay lal dafa am solo ci sëy ah quand même. dafa am sëy mais lii juutu mooy mbëggeel. Mhm. gis nga soo ko bëggee. na la nekk góor avant tout. Mhm. na na ndaw ak na diis na nekk góor. mais mais test bi dina la permettre nga mën a xam ni kii góor la wala du góor. man dëgg fa yàlla suñu diina mayuñu. Mhm. ñun dugg ñu say testé. Mhm. kon yàlla mais yow yow moom bu demee ba jigéen ñi di testé avant ñu dugg ci néegu say. kon yow lu la yàlla jox nga jël boo testé wul. du du lu ma yàlla jox ma jël. mais su ma nekkee ak yow ma bëgg la. Hmm? am na leneen lu gën a am importance ku may nekk di testé. Mhm. kii mbosam dafa naw wala dafa rëy. d' accord d' accord alors yéen a ngi ci seen émission ba léegi a euh, jamono ñi ngi si dernière tout de table bi. Mhm. ku nekk da ngay xool li nga li la li li la intéressé ci wax bi nga daal di koy tëjee mhm. euh, ku tëj nag doo tijjiwaat. <laughs> boo tëjee rek ñu pare si. man mun naa tëj de. bu la neexee ma njëkk a tëj. waaye li may bëgg ñu xam ko mooy. léegi ni ngay tëjee waaw. moom daa dugg ci test. Uh-huh. bi mu testé rek la yàqu. Mm-hmm. man man ku ma testé mam boo ma testé da ngay toog. lu tax may man ku testé yàqu. man ku ma testé. man boo may jarul testé man da may dugal da ngay téye nii rek nëpp. Eh. <laughs> lu leer laa wax ma xool nga ni. déggoo ma de man da ngay téye nëpp rek bu doon xaalis sax da nga koy baatare teg ko. Mhm. parce que xam nga dafa am loo xamante ni dañ dañ ko gisatu ci jamono ji mhm. góor guy tuur ndox nga yëg ni kii mi ngi tuur ndox. Mhm. foofu day am turu. ndax tut tut di tëj teg gi. foo toll ñu ko dégg rek rek. mais te naaru góor. déggoo ma de. boo xasee mbasaan yeewu fu ñu daan toll dañ ko daan dégg raté gi gi tat tat gi. loolu yooyu loolu moo tax ñu daan wax góor. mais tey xoolal góor dina yeewu ba fudd ba génn ba sangu ba dem doo xam ne góor góor yeewu vraiment vraiment. et c'est jigéen ñi nag loolu seen problème. jigéen dëgg bu la am ndox. buy riiju di daagu sër bi du nangoo day kole sum mais du yàlla du yàlla muy ñëpp ay. kii lu ñu sol ma de lu ñu sol muy mbax. d'accord dégg naa foog bopp gu muy wax noonu. Uh-huh. ak di si seen bopp. Uh-huh. mooy tax seen lu ñu sol muy mbax. Uh-huh. kon pour que lépp nag nekkaat. solution bi ngay joxe solution bi laa wax de pour que lépp nekkaat. góor ñi teg fa ñu war a tegu. jigéen ñi gis nga karité lu baax la. dafa baax naturel ku nekk dàmp nañ ko ko ci. ku nekk dàmp nañ ko ci karité mais nag boo ci buggee yokk lu bokkut ak karité say carrière. lay wàññi ngay arrière ñu jël la yóbbu la fourrière. Mm, ñu jël la yóbbu la fourrière. waaw Davida moo ko wax merci beaucoup alors euh, Soda. waaw Ousseyn. werante laay bañ. lu ma werante rek moom mm-hmm. kii kii maag moom bu ñuy werante bi du nangoo du nangu. Mm-hmm. du nangu mais tey li ma li ma koy wax rek muy bañ gis nga tey xale yu góor léegi tey booy xool moom li muy bañ démb. Mm-hmm. bu njëkk démb naturel la ñuy demee. mais léegi kenn demeetul naturel. muy góor jigéen muy góor jigéen kenn demeetul naturel muy sa moroomu jigéen muy góor ñi kenn demeetul naturel te booy xool naturel dafa nekk loo xam ne dafa baax. Mhm. mais dafa baax ba si néegu sëy. Mhm. dafa baax ba si néegu sëy. Mhm. mais kenn nangootu ko nag. mais yàlla baax na yàlla baax na euh, jaara. waaw comme ko waxee rek. jaara gisoo sànq bu lay su ma lay nuyu dama lay neexal. naan la jaara mais loolu su ma la ko su ma la su ma la nee jaara danga naan ma Ousin mu neex. Ousin eh, eh, eh. <laughs> continuer voilà mbégte la woon bokk ak yéen plateau mhm. vraiment mhm. comme nañ ko waxee rek sama euh, euh, mhm. moo bu mujj mooy que ni rek nañu naturel que ni muy ku góor kii wala muy ku jigéen kii parce que même jigéen ñi sax léegi am na loo xamante ni ñu ngi koy utiliser seen néegu say mën na leen a gàllankoor wala mën na gàllankoor sax ku jigéen ki donc comme ni ko Ousin ni ko David daa waxee rek dañu am na yeneen yoo xamante ni suñu ay bio la fii la nekk muy carité muy yeneen ak yeneen yoo xamante ni mën nañ ko utiliser te ñu lor te it euh, di oh, yeddaat ñi nga xamante nii mooy góor ñi rek mooy que ni mbirum artificiel moom comme jigéen ñi lañ ko xasee daal di koy euh, na jigéen moom moom moo naturel donc dañ ko bàyyi jigéen ñi parce que jigéen ñu ci ëpp ñu mm-hmm. ñu utiliser mooy ay si ay ongle te peut du leen gàllankoor mm-hmm. mais ñoom bu ñu demee ba yokk ay aro euh, ay awra mm-hmm. def daal di indi problème bu donc euh, nañu delloo si waat xel naturel rek. <laughs> alors ça a été un plaisir de vous servir Ousin ngeen doon àndal ak équipe sama gars yi Davida Diarra Soda gis ngeen werante bi tàng mais li ñu ci jublu rek mooy jàngale ndax fi xel yam xel tàmbalee na fa di dem jëlal li baax nga daal di koy jariñoo li nga xamante ni jàpp nga ni baaxul nga sànni ko fële beneen euh, semaine dinañ choisir pourquoi pas ci jigéen ñi lu tax ñoom tamit naturel la ñu lu tax tout le temps ñuy monter ans monter wen moonte lu ne loolu yëpp dinañ ko waxtaanee ci beneen numéro Ouzin ngeen doon àndal ci seen émission jamono di jox rendez-vous ci beneen numéro jaajëf.